salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. bàyyi suñu bàyyi suñu Abdou Rahim Seck baax say doom say gan sa njaboot dina ñëw seet seet si la tey xam naa duñ ñëpp ñoo xam ne duñ leen présent duñ leen ko présenté xam nga ñëpp ndax sa njaboot lañu su ko defee xam naa dañuy yëkkati kàddu jox leen rek ñoom ñoo xam nu ñëwee def seen présentation yëkk seen i kàddu su ko defee bàyyi sëñ bi teg ci ay kàddoom. salaamaaleykum Baye Abdou ñu ngi lay nuyu euh, ci turu Abdou Ñing ak euh, délégation bi mu àndal. boot gi fi fekk euh, sant Seck ñoom Khalifa Ibrahima ak ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu yët àq nag tey jii Abdou Ñing moo fi ñëw ak délégation bi nga xamante ne moom la àndal pour ñëw gën a yees lu gën laa jox boppam rek moo ko tax a ñëw. waaye comme dañoo structuré woon ànd bi ci ni ñu ko àndee eh, wilaya nekk nii yor affaire religieuse kon te diine moo nu tax a jóg tey ngorog diine bu nu taxee jóg dañ ko jox kilifa diine yi ñoom ñu ubbi waxtu li nga xamante ni moom lañ ci war a wax bu ñu paree ñu jox Souleymane mais nga xamante ni eh, doomu Abdou la mu wax njaboot gi nga xam ni moom la àndal ak njabootu Abdou Ñing gi Eh, li tax mu ànd ak ñoom ñëw nii bu ñu paree ba sànni ci ñaari kàddu rek ñu jox Abdou mu mottali ko eh, bu ko defee ñu jox la kàddu bi aousubillahi min asheytaani irajim bismillahi rahmaani irahim wasalaatu wasalaamu ala seydina ñu eh, nuyu di ziara sunu maam sunu kilifa sëñ Abdourahim Seck di xalif général bu Thiénaba di ñaan yàlla yàggal ko lool te wéral ko yàlla sàmm ko te aar ko ba wattu bi nga xamante ne nii ko wattu bépp ndam bu fi mos a am yàlla na ci ëppale barke Seydina Cheikh Ahmadou Tidiane di ko di nuyu njaboot gi nga xamante ni fekk nañ fi fekk nañ leen fi eh, sunu waajur si eh, sëriñ Xalifa Ibrahim ak sëriñ Ibrahima Seck ak sëriñ Mouhamad ak sëriñ Abdoura euh, Abdourahim mu sëriñ Mori Seck yóbbaale leen ñu ci des ñëpp tabaarakallaahu muy njaboot goo xam ni ñiñ fi fekk njabootama waaye ñi ñëwit it njabootama ndax tabaarakallaahu ni ma koy faral di waxee canaba euh, philosophie canaba yëmul ci biir canaba waaye dafa mboolem ko aju ci canaba rek te gëm tarixa bi gëm Mamour Ndak di sa yaakaar même benn philosophie la am te mooy. dund tarixa bi waaye dundal kër ma Ahmad Ndack Seck te philosophie boobu euh, tey jii ci sa loxo la ko yàlla teg kon yàlla na ko yàlla taaralal yàlla sàmmal la ko yàlla aaral la ko li alxuraan naan i yansurkumullaahu falaa xaaliba lakum yàlla na ko yàlla defal barke alxuraanul karim ah tey jii nag euh, ñi fi ñëw di ak njaboot goo xam ni daan nañ fi ñëw macha allah rabbi di feddali seen taxawaay ci sëñ Thiénaba waaye di feddali seen laxasaay ci sëriñ Thiénaba waaye di jéem lenn ci liggéeyal seen bopp ci sëriñ Thiénaba ndax damay wax ne sëriñ Thiénaba lu ko waay defal sa bopp nga ko defal mais moom defalutoo ko dara ndax yàlla defal na ko li koy defal ba pare kon lu ko waay defal rek day wax ni jëf la joo xam ni yaay barkeelu ci moom ngir defal sa bopp kon macha allah rabbi loolu moo war la tànk yi nga xamante ni président Abdou Gningue na ànd ak sunu maam Njaga Jeng macha allah rabbi ak euh, sëriñ Makan Seck mii ñu àndal tabarakallahu moom di doom bay Yuusu Seck ak soxna yi ñu ànd ak suñu mbay Caam Siise ak ñu ñu àndal ñëpp tabarakallahu boo ko limee bari na ñu ñëw ngir feddaliwaat seen laxasaay comme ni ma ko waxee léegi ci sëriñ ba waaye tamit xam ni yéen bi ko yàlla jox dafa rëy ñu fexe ba lépp loo xamante ni nii xew-xew la wala boog lépp loo xamante ne ni taxawaay la bu ñu war a taxaw ci diine ji wala boog lépp loo xamante ni lu ñu ko war a gungee la ba diine ji ñoŋ ba ak sàmm sàmmam gën a ñoŋ ba ak sàmmam gën a rafet ba ak taxawaayam gën a mat tabarakallaa ñu ni ñoom dañuy jug ngir jàppale Serigne Thiénaba ci li nga xamante ni mooy taxawaay boobu noonu ñu mel ni ki am na sunna soo xam ni jublu nañ ko muy tabaski macha allahu rabbi di loo xamante ni du rëy la ci lislaam ñu koy taxaw waaye ku ne xam na fii ci Thiénaba Eh, niñ koy taxawoo eh, wute nag yeneen yu bëree bare bari ndax daanaka Serigne Thiénaba bu fi ne lu rëy rëy rëy day tegu ci sa kaw ba ñu bëree bari macha allah rabbi ñëw di ko sàkku ci ci yow moo tax ñoom it yu mel nii bu ñëwee ñu xool nu ñu jàppale Serigne Thiénaba moom fexe nuñ ko taxawoo ba loolu nga xamante ne ni bëgg na ko ci njaboot gi bëgg ko ci taalibe yi bëgg ko ci diine ji yàlla mën ko cee defal li nga xamante ni mooy bëgg-bëggam boobu mu mat ba tax na président Abdou Diouf ngi ñëw indi fi tey macha allah rabbi teraanga goo xam ni mën na ni taalib yëpp la ko defal waaye mën na ni njaboot gi yëpp la ko defal mën na ni tamit diine yëpp la ko defal waaye mën nañ ni tarixa bi yëpp la ko macha allah rabbi ndax euh, du moom dong moo koy def waaye tabaarakallahu bu bokkee ci njaboot gi dëkk ci dëkk bi euh, bokk ci ñu ràññee. Euh, lu mel ni xew jaadu na ci moom rafet na ci moom yell na ci moom mu yëkkati teraanga ak nu mu mën a toll jox ko sëñ Thiénaba ñu koy liikat macha allah rabbi maa ko def sama ziyaara waaye tamit maa ko def sama tëbbu ci yow kon tabaarakallaahu loolu bokk na ci nga xamante ni indi na ko tey macha allah rabbi ndax euh, xam nañ ni seen kóllëre jiitu na tey macha allah rabbi jiitu na tey kon bu ñëwaatee def lii ak fedd lañ koy tuddee rek waaye macha allah rabbi nekkul loo xamante ni. lu yees lay doon ci moom kon ñu ngi ñaan euh, moom mi nga xamante ni def na ko na ko yàlla defal tawféex defal ko jàppandal ba lu ñëwati mu gën koo man mu yàgg ñëw di la fi fekk waaye teraanga yi tamit di gën di yokk mu koy gën di man kon euh, kàddu yi ci gàttal euh, mën naa ne kaddu yoo xamante ne ni mën naa ko ubbilee ñi ci des macha allah rabbi bu ñu ñëwee tamit ñoom ñoo xam fi ñuy jaar waaye liñ ci dolliwaat rek mooy ñu xam ni ba moom nii lay doxee. képp koo xamante ne nii yaa fi Serigne Thiénaba lépp ma amari ndaak macha allah rabbi yow lañ koy jox damay wax ni képp ku bëgg jox ma amari ndaak addiya ak mbooleem ku mu njabooti soo ko bëggee teg ci loxoom ci Serigne Thiénaba nga koy teg mooy tax addiya jooju mu mën caa jot kon bépp ndimbal bu waay di yëkkati wala bépp def-def bu waay di def nga jëme ko ci Thiénaba wala nga bëgg koo jëme ci mag ña soo bëggee mu gaaw a àgg na nga ko jaarale ci Serigne Thiénaba tabarakallah ndax def googu nga koy def du loo koy dimbalee mais sa bopp nga koy defal kon loolu mooy mooy philosophie bi nga xamante ni moom la ñu gëm te moom la ñuy dund macha allah ñu ngi ñaan yàlla doole yàggal euh, toogaay bi doole guddal fan wi doole wéral cër yi macha allah bi doole sàmm sàmm njaboot gi aar xadara bi ak ba li bëgg-bëgg yi nga xamante ni am nga ko ci pour àggale yéene yi macha allah bi yàlla defal ko barke alxuraanu karim ñu ngi jégalu bu baax salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. min ashaytaani rajim bismillahi la xawla wala quwata illa bika ya aliyun azim xasbuna allahu niama alwakil alhamdulilah alhamdulilah alladi allamana min alulumi ma bihi kallafana wasalaatu wasalaamu ala sayidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ñoo ngi gàttal suñu kàddu nuyoo ginnaaw bi ñu santee suñu borom bi subhaanahu wa taala julli ci sangam bu tedd bi saydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yeesal suñu taalibe ak suñu tëbb ak suñu cofeel ci Seydi Ahmada Tidiane Chérif radiallahu anhu di yeesal suñu cofeel ak suñu taalibe ak suñu tëbb ci faydu Seydil Mujahid ma Ahmad Ndak Seck yàlla nañ ko suñu borom bi doolee fayal di nuyoo di ziyaara di jël nuyoo boobu ak ziyaara boobu jébbal ko suñu wayjur waaye suñu maam Baye Abdourahim Seck yàlla na sama borom subhanahu wa taala yàggal la fi tamay la wér nuyoo bii nag ñoo ngi koy yëkkati ci suñu kàddu yi nga xamante ni day kàddu yu xeebu lool di kenn ci njabootuk sëriñ Abdou Gningue buñ nee njabootuk sëriñ Abdou Gningue mooy njaboot goo xamante ni dafa bàyyeekoo ci tafsir Modou Ndiaye wàcce euh, bàyyeekoo it ci tafsir Sang Gningue bàyyeekoo ci tafsir Bira Fally Siga Njari Gningue njaboot googu nag ñoo ñëw tey jii di yeesal seenuk taalibe waaye ñëw tamit di indi seen addiye ci suñu maam Baye Abdourahim Seck kàddu yi ñu yëkkati nag kàddu yu ndigal la dis na ci ñun lool ndax wax dëgg yàlla du lu ñu mane waa dañuy wax ne al iznu la yadurru ndigal du lore moo tax ñu koy yëkkati sëriñ Babacar Seck wax na kàddu yu rafet ci diggante Baye Abdourahim digganteem ak jaami euh, maa ngi koy xalaat léegi bi mu wax ma ne bu ñu yàlla joxeñee ci arab ni haza abdun rahimun bu day mel dañuy soxla naxtu laaj ko ni ko yàlla kii loo ñuy indil ci melokaanam mu ne abdun rahimun jaam la boo xamante ni lim leen indil mooy yërmande yërmande jooju yàlla na suñu njiglaay eh, la di suñu sëriñ looloo tax sax ñu abiyee woo nii ñu abiyee woo ndax mooy suñu lépp di suñu bunt moom mii suñu lépp di suñu bunt ñëw tey ci ki nga xam ne mooy léppam di buntam kon suñu sëriñ lañu àndal mu ñëw ci sëriñam moo tax ñu de mel nii ñu mel suñu sëriñ bi ñu àndal nag di sëñ Abdou Gningue nga xam ne mooy xalifa Modou Ndiaye Gningue dafa ànd ak i njabootam ki ci njëkk di Alaaji Ndiasse Gningue mi ngi nii wàcc léegi ki ci topp di sëriñ Ousseynou Gningue ànd ak doomu ndeyam xaritam lépp di sëriñ Jaga ànd ak sëriñam xaritam di sëriñ Babacar Seck wilaya ak sëriñ Makan Seck ak njabootu boppam gi mu àndal lépp sëriñ Babacar Cissé Mbaye mi ngi nii ak sëriñ xaalis Seck ak ñin ko bokkal du ma lim ndax bu ma limee mën na maa desal waaye li ñuy wax rek mooy li français yi di wax une pierre deux coups moom la ñëwee tey sëriñ Abdou dafa ñëw ngir yeesal ak taalibeem ci Baay Abdourahim di jéggaluwaale sax ci loolu ci mbo njaboot gi ñu àndal nii nii mu xaw a yaatoo ndax wax na ma ci biir saal bi ni ma Baay Abdourahim de am naa ci moom yéen yoo xam ne su ma sañoon su ma doon yëkkati ay oto yi oto di ko jox sama njaboot sax dañ koy umpale waaye nag damaa ñëwee ci moom tey ñëwin goo xam ne su ma sañoon Sénégal gépp xam ni sama mbubb futteeku naa ko ngir doon Baye Fallou Baye Abdourahim so su ma sañoon sama njaboot gi duñ ci am kumpa moo tax man leen ñoom ñëpp nañ fawu te ñëw njabootam nañ ëpp nañ nii ñii njaboot ga yeewoo ci kër ga waaye njaboot gi ko yàlla boole si canaba ci wàllu wi muy yëngatu yaakaar naa bu leen waxoon ñoom ñëpp ak nawet bi fi mu toll dinañ dagg seen i ak lu ñu xat gunge ko ci ñëwam bii moo tax muy jéggalu ñi mu àndal ñëpp waaye teraanga bi nga xamante ni lu mu xeeb la ci sa digganteeg moom bu sañoon bu koy def sax benn nit du ko topp ci sa digganteeg moom dong la yem waaye ñëw gi mu ñëwee ci njéggalu ak lu gi nga xamante ni maamam xissa bi dafa may xaw a rëcc damaa xamul sëñ Ibrahima la xawma sëñ Alpha sama maam Modou dafa ànd ak maam Babacar Sarr ànd ak maam Jibrilu Diagne ñu sëñ sëriñ sëriñ Alpha wuutu fi sëñ Ibrahima ñu ñëw di def ak yeeslu xasida boobu ba tey jii ñu ngi koy way mu ni lakkum jadat naa bi xablil wasli fi abadin wala li gayrikum fi taxqiqi absaar yi fi yadikum rusdu xuudu ila mahalin sama maam dafa way ba ba ba ba ba ba maam Babacar Sarr woyee woyee woy woy ba yaramam tàng ni lakkum jadat naa tey bis ni tey dañoo ñëw ngir yeeslu yeeslu googu moom fa la sànniwaat buumam tey maanaam ñëw ngir yeeslu mu ni fii yadikum rusdu quudu ila ma wala wala li xayrikum fi taqiq absaar yi gis-gis boobu ñu amoon ni amul ku yey ñun ci suñu taal ci suñu ci suñu addiya amul ku yey ci suñu si suñu ñaq amul ku yey ci suñu yëngatu yu ne ku dul ki fi toogal Maamari Ndak amul amul sama papa alaaji kaa ñi nga daan wax naan sama maam mu daan wax naan bu canaba doon tàkk tey ab doom la ñuy doon bu canaba doon tàkk ab doom lañu doon loolu sa alaaji kaa ñi nga daka daan wax tey ji nag moom mii moo fi alaaji kaa moo tax mu ni yees lu ga sama baay defoon ci sëñ Alpha ba tax ñu woy seen woy yooya sama maam daa jël da da daa feelu maam Babacar Sarr ni ko sadaqta sadaqta yaa Seex Sarr bi qawli kaza bi qawli kaza irsunta asala min siidin wa saadaati da Baye Jibril Diagne Baye Talla Diagne daal di ñëw daal di wa yuusilul jibrilu fii tajdadina min dal xalifati maljaul bariyaati waa gis nga woy yooyu ñu woyoon maam alfa maanaam yow jëmbale wuñ la ko way yooyee moom lañ la woyal tey jii jëlaat buum googu nag luwaat ko ci yow wékku ko ci yew di ñaan yàlla yërmande ji yàlla lamb ci sa tur wi ta nga fees ko del feeñal ko ci sa jëmm yërmande jooju yàlla nañ jiglaayu canaba parce que maam Abdourahim képp koo xamante ni canaba dégg nga turam même boo déggul arab xam li tur wi firi da nga naan kooku de borom yërmande la moo ne moo ne ku dégg arab bu nekkee ci wàllu dara moo ne turam wi de arab bi li muy firi mooy jëmm yërmande la te fekk na moom déggul arab sax moom jëf ji rek la xam. yàlla nag jëf la xam kon nag sa yërmaande ji na ci yow yàlla nay njiglaay ci njaboot gi lii daal moo doon kàddu yi nga xamante ni andi nañ ko ci sama làmmiñu gàtt man li ma ci mën a génne muy ñëwee ñaari was benn was bi mooy ñëw ngir lépp loo bëgg ci ci ci Thiénaba jëm ci administration pare na ci pour jàppale la ci dina ci dina ci àddul boppam beneen ba ci des mooy njaboot yi nga xam ne ci loxoom la ko yàlla teg te ki ci jiitu di alaaji Ndiass mi ak ay rakam ñi ne fii ak ñenn dakaar ñëpp ñu bokkandoo bokk alaaj Mun Njaay ñi ñoom ñëpp mu boot leen tey ji ne nan leen dem ñu yeesal suñu njébbalu jël li ñu jël jox ko ba muy suñu muy suñu muy suñu njébbal ñaari was moo ñu fee indi tey asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu sëñ bi dañuy dellu du nuyoo rek di gërëm Babacar jërëjëf matal nga doon doyee eh, joxal nga ko ba mu mat sëkk looloo tax Eh, Abdou Gningue bu taxawalee kuréel jox la nga nekk euh, chargé des affaires religieuses yëfu diine bu ne Abdou Gningue buñ ko ca wooyee yow lay woo yaa fay wax man fa ma mën a féete rek laay féete Souleymane jërëjëf wax nga ci mbokk gi wax nga ci ngor gi wax nga ci diine ji wax nga ci taalu taalibe gi jébbalaat seen bopp sëriñ bi loolu lañu la doon xaare waaw ah, xam naa man nag comme daanaka wax ji jeex na ndax mënumaa wax fi ngeen waxe damay rasaatu rek dinaa raas nag lu ma wax waaye raasaatu lay doon loolu nag nu boole muy mbokk gi di diine ji di ngor gi fas yéene nañ koo doxal te dara du ci manqué incha allahu foofu lañ lay boole ànd ak abdu abdoog ñëpp jébbalaat la suñu bopp di la dégluwaat ci lépp yaag say mbokk gis nga ñii nga Babacar mii mu jël nii ak euh, sëñ sëñ Makan mii mu jël nii ak euh, sëñ Mohamed Seck ak ñëpp ñi nga xamante ne dañoo sant sekk ànd ak Abdou ñu ngi mii ci yëngatu bi muy yëngatu defu ko dara ludul nii dañu nit boo ko bëggee jàppale da ngay jël ci moom ñii da koo jëlee ci yow ngir ñu jàppale ko kon jëw mënu faa am leneen mënu faa am ndax ñii la taxaw ci côté boobu ñiit ñu ngi leen ci sant di leen ci gërëm ndax seet nit ba mu doy la nga ànd ak moom ci di yëngatu ca loola loolu dafa doyo dafa dafa dafa yéeme man daal fii laay yemale sama kàddu di leen balu àq di balu ñëpp àq di yeesalaat ak ñu nit sunu sunu sunu jébbal ci yow euh, sunu jox la sunu bopp nga ñaanal ñun ñëpp li nga xamante ni moom la ñu bëgg ci Thiénaba rek ñu am ko te mooy Thiénaba avancé mooy Thiénaba jàll mooy développement mooy luy doxal dëkk bi waaw loolu rek la ndax maam yi loolu lañu ànde woon kon damay jox Abdou moom mu. asalaamaaleykum euh, wa rahmatulahi taala Euh, sama papa maa ngi lay nuyu ah, di nuyu itam nag kilifa yi fi nekk yëpp eh, imam Khalifa maa ngi lay nuyu bu baax sëñ Abdou ah, euh, maa ngi nuyu bu baax itam ñi nga xamante ni ñooy kilifa yi mujj ñëw léegi sëñ Dame sëñ Ibrahima maa ngi lay nuyu sëñ Mohamed maa ngi nuyu ñëpp daan ah euh, boo gisee yoon wi comme ni ko sëñ Souleymane waxee da yoon woo xamante ni dañ ko teg ci ñaari ñaari ñaari fànn ci ñaari tànk benn tànk bi mooy tànkub diine ji may ñëw di di di di la jox sama bopp may ñëw di di yeeslu yeeslu bi nag di la jox sama kurus ndax ñun suñu bàyyi képp koo xamante ni moom musa nekk xalifa danaan topp ci moom noonu ko sama papa doon defee nag <coughs> moom laa koy définir ah yees lu boobu man maa ngi jël wird soixante quinze mille neuf cent soixante quinze Baye Alpha moo waxoon sama papa booba temps ma bëgg ñëw jël wird ñoo wax ko sama papa sama papa dikk ci moom mu ni ko na dem ci Abdou mën ko tudde mm-hmm. ndax booba temps sama papa Abdou dañ ko ijaasal <coughs> bàyyi alfa ko na dem ci kooka ma dem ci sama papa Abdou ah amin sekk moo de amin amin amin booba léegi nag euh, sëriñ gu fi nekk ñëw naa ci yow jox la sama kurus jox la sama wir euh, sama sama sama taalibe euh, jokk ci yow bis ki tey defar naa ko mais dama koy fedd li ci sama kanam njaboot yi jokk naa ci yow euh, beneen bi ci des muy euh, euh, tànku yi nga xamante ni mooy tànku àddina bi ndax yàlla daa def ma nekk sa ndaw nekk ndawul sëñ ba ci état bi dañuy def au conseil ni dañuy jox sëriñ yëpp këri sëriñ yi ku nekk ñu jël fa ndaw jël joxe pour Thiénaba Tivaouane euh, Ndiassane Touba Niassène euh, ak euh, Layène ñu nekk joxe ndaw yàlla def nag ci kartanu ku sama borom Baye Cheikh tànn ma ma nekkal fa Thiénaba donc nekkal sëñ Thiénaba ci jotaay boobu cër ba cërub sëñ Thiénaba la woon Baye Cheikh jox ma ko ma toogal ko fa bàyyi seex boobu muy sëñ Thiénaba yàlla def na yaay sëñ Thiénaba kon nag cër ba ma fa nekk na ma fa tooge sab toogaay laa fa nekkee dama bokk ci ñi nga xamante ni ci say eh, eh, eh, say jëwriñ ci ci say jëwriñ lan comme ni ko imam bi nekkee ak imam xalifa ñoom niñ ko nekk ci jumaa ji ni ko ñoom sëñ ñaana ak chef de quartier yi nekk ci quartier bi man mii noonu laa la fa nekkale xamal ni am nga ndaw ci état bi fa ñuy wax au sey de collectivités territorial maa fay sa ndaw loolu yàlla moo ko def jox ko nag bàyyi seex ndawul cena ba lañ ko ni jox ñu ndaw jox na ndaw googee nag yàlla euh, baaxe ko euh, ak euh, suñu borom ba man ma dem fa kon nag loolu it maa ngi lay fàttali ni sa ndaw laa fësal yéene laa taxawal nag ci ndaw loolu xam nga nag ndaw eh, yow laa fay xoolal sa tànk laa fay nekk lu ma fay def ci sa ndigal lay nekk loolu it dama ko bëgg a continuer nag yàlla daa defoon ma nekkoon fii nekk ci activités yi ba Baye Cheikh nekkee fii ci loolu laa nekkoon noonu laay continuer nag waaye lépp nag ci sa ndigal lay doon mm-hmm. foo ma ne taxaw fa ma taxaw loo ma jox du ma jéem a def leneen loo xamante ne bokkut ak la nga digle man daan seen ndi sa digal lay diglu yàlla def na euh, maa ngi sant yàlla yàlla def na am naa euh, ay gis-gis am njàng yàlla def na it bëgg naa cana ba dox waaye lépp nag ci sa ndigal ndax sa ndaw la loolu daan ci gàttal laa noonu maa ngi la koy fàttali Euh, di la andil nag lii nga xamante ni dañ koy barkeeloo ci tabaski bi muy xar mi a ah, ànd ko nag ak sama rakk yi njaasa ñi ngi moo nekk na le di di mag ci waa njabootu yaa maritu yaa maritu gis nga ko bis bu set euh, damay wax ci yow lu bëri nag waaw euh, kon nag taawa ma nga nee toog jóg ngir lii boole koog Ousseynou boole koog sama soxna yi nga xamante ni sama ay samay doom ak samay soxna loolu yëpp daal di wane ni rek eh, eh, eh, njaboot gi moo ñëw njaboot googu nag moom lay teg sa loxo di la sàkku ñaan ci yow di la ñaanal nag sa toogaay bi yàlla na nekk toogaay ba gën a sedd ci toogaay yi di xamal itam ni lépp loo xamante ni yëkkati nga ko yaakaar ne mën naa ca dara boo ma ko waxee ma ma def ca la ma man waaye fépp foo mën a yem fa it ma yem fa waaw loolu daal eh, laanoon naa la koy eh, jotli maa ngi sant eh, di di ñaan nag yàlla defal la jàmm ak salaam yàlla defal ñu jàmm ak salaam di sant sama rakk yi Ndiasse maa ngi leen di sant bu baax di sant sama soxna yi ñoom ñëpp bëgg na ñëw ñoom ñëpp bëgg na ziar si ah maa ngi lay ñaan nga ñaanal ñu ci yàlla wàcc ay xéewal ci Thiénaba may la nag gudd fan ko wér ñoo ngi sant allahumma salli ala sayyidina Muhammadin do nuyoo mbooloom mi yëpp ngeen ji nuyoo ngeen ji nuyoo di ko jële ci suñu kilifa di ko jël nag suñu kilifa Serigne Thiénaba Serigne Thiénaba li ñu waxoon léegi rek li waxoon léegi rek ci ñi leen fi jiitu woon ci fi jiitu woon moom la ñuy waxaat moom la ñuy waxaat nitu diine ku ne nitu diine ku ne kilifa ak diine la soxla kilifa ak nga soxla kilifa diine leen soxla nag. kilifa diine leen soxla nag. am nañu ko. am nañ ko. ndax li ñu soxla ci kilifa. ndax li ñu soxla ci kilifa. mooy am yërmande. mooy am yërmande. am ñeewant. am ñeewant. mën a uuf. mën a uuf. di dimbalee. di dimbalee. tàgg nit ñi rek nag. tàgg nit ñi rek nag. ndax kilifa moom. ndax kilifa moom. du lenn lu dul. du lenn lu dul. ki la tàgg. ki la tàgg. ki la tàgg. ki la tàgg. ba doo tawte. ba doo tawte. ba naaj du la laal. ba naaj du la laal. moom mii nag. moom mii nag. danoo am ci moom loolu. am moom loolu. te fekk doonagul kilifa. te fekk doonagul kilifa doonagul sëriñ Canaba. fekk doonagul sëriñ Canaba. ñu meen ci moom mu tàgg. ñu meen ci moom tàgg. meen ci moom yër nit. moom miin ci moom yër miin ci moom yërëm nit. miin ci moom yërëm nit. kon bu soobee sunu borom bi tabaaraka wa taala. kon bu soobee sunu borom bi tabaaraka wa taala. muy womat muy wommat. ba teg ko fi. ba teg ko fi. sunu xel. sunu xel. day gën day gën a dalaat. ndax lu waaye miinoon démb ak barki démb ndax lu démb ak soxla lu mel noona soxla mel noona yàlla andi ko yàlla andi ko ba mu tàgg la ba tàgg la sa xel sa xel dina gën a dal dina gën a dal ñu ngi koy ñaanal ñu koy ñaanal xilaafa gi yàgg xilaafa gi yàlla yàgg yàlla bàyyee ko ak wér yàlla bàyyee ko ko am xelam bàyyee ko ak xelam bañ koy weer ak weer yi bañ koy weer ak weer bi mu toogee ak tey bi mu toogee tey yàggagul de yàggagul de waaye li wees waaye li wees xel yëpp dal na xel yëpp dal na nu yaakaar yëpp dal na yaakaar yëpp dal na nu yaakaar yëpp dooleeku na yaakaar yëpp dooleeku na nu kon kon nag lii ñëw lii ñëw yaa nan ko yàlla gën a yëkkatil yaa nan ko a yëkkatil ba mu gën a kawe ba mu gën a fan koy njortu fan koy njortu ak fan koy natt ak fan koy natt ndax doomu aadama moom xam ne doomu aadama moom xel rek la yor xel dong la yor man nay natt man nay natt man nay tëral man nay tëral waaye yàlla waaye yàlla ci kattanam ci kattanam mën naa weesu loola lépp man naa weesu loolu lépp yaa nan ko yàlla defal ci moom yàlla nan ko yàlla defal ci moom bég nañ ci moom bég nañ ci moom kontaan ci moom kontaan nañ ci moom eh, di leen sant di leen ci seen tànk yii. seen tànk yii. Abdou nii nga dikkee. sama nijaay Abdou nii nga dikkee. ànd ak sunu euh, njaboot gi ànd ak sunu njaboot gii. wilaay nekk nii. sunu Babacar wilaay nekk nii. ak sunu rakk ji. sunu Makan Sekk nekk nii. ah sëñ nekk ni sama nijaay Njaga nekk nii. njaboot gi nga jaboote yëpp. njaboot gi nga ñoom Njaase. ñoom sëñ Njaase. ñu dar la ñëw. ñu dar la ñëw. nga jiitu. nga jiitu. loolu dal na xel. loolu dal na xel. mag ñi day. mag ñi day. noonu lañ ko doon defee. noonu lañ ko daa defee. kon. kon nag. noonu ñu fekkee woon. ba ñuy rëdd sa kër bàyyi gee ba ñuy rëdd sa kër bàyyi gee sa bàyyi nekk ci dëkk bi sa nekk ci dëkk bi doon ilimaan ji doon ilimaan ji ba pare woyof tooy pare di dugg ci àll bii dugg ci àll bii di liggéey loo xam ne lii di liggéey loo xam ne ah, ah, xam naa ni xam naa ni da koy nëbboo da koy nëbboo waaye waaye du lu mu soxla du lu mu soxla du lu mu tumuranke du lu ba tax muy defee ba tax muy defee noonee ba tax muy defee noonee man nag moom nag samay wax samay wax day ah, dana ci am ñaare loo xam ne dama koy laal dam ñaare loo xam ko laal sa baay moomee sa baay moomee fa ko baay alfa tegoon fa ko baay alfa tegoon ak ba nga ko doon xool ak ba nga ko doon xoole tax na benn bis tax na benn bis yow mii yow mii nettali nag nettali nag deesu jël lépp deesul jël lépp da cee mus rek da cee mus rek ndax ni nga def ndax na nga def nga dugg ci politique bii nga dugg ci politique bii bis jot bis jot ñun ñëpp ñu takku ñëpp ñu takku di la jàppale di la jàppale ñu dem ba yàgg ñu dem ba yàgg am lu la nar a gaar am lu la nar a gaar kere nii laa def kere nii laa def sama loxo sa bopp sa digg bopp sa digg bopp en public. en public. kilifa toog. kilifa toog ñeneen toog. ñeneen man la Abdou. man la Abdou. doo dellu ginnaaw doo dellu ginnaaw. doo bàyyi doo bàyyi. ndax ñun ñii. ndax ñun ñii. du nu song ba pare. du nu song ba pare deeti dellu ginnaaw. deeti dellu ginnaaw. kon. kon nag yëngu nañu ba noppi. yëngu nañu ba noppi. digul. digul te te téye ñu jàppale la. ñu jàppale la nga jot ci li nga bëgg. nga bëgg. lii defoon naa ko defoon naa ko. am na wala amul. am na kay nee na am na de. waaw la nga bëgg am na de. léegi nag. léegi nag. nii nga def. nii nga def. mooy yoon wi mooy yoon wi sëriñ canaba sëriñ canaba menn lay doon menn lay doon du doon ñaar doon ñaar sëriñ Thiénaba mi fi newoon sëriñ Thiénaba mi fi nekkoon ak yi ko fi jiitu woon ak yi ko fi jiitu woon sa bàyyi daan ca bootu sa bàyyi daan ca bootu ñi nga fi fekk ñi nga fi fekk bootu nga bootu nga kon tey jii kon tey jii boo dikkee boo dikkee indi teraanga ju tol nii indi teraanga ju tol nii indi say bokk indi say bokk indi sa njaboot indi sa njaboot ni sëriñ bi ni sëriñ bi ab dum démb ab dum démb ak fu mu mën a ne ak fu mu mën a ne tey tey jii yaay ñu fi newoon démb yaay ñu fi nekkoon démb ak tey ak tey maa ngi nii maa ngi nii wàcc nga wàcc nga wàcc nga wàcc nga wàcc nga nun nag nun nag foofee nu toogoon foofu ñu toogoon ma waxoon lu loola ma waxoon lu loola fu ni mel fu ni mel nga ma fekkaat nga ma fekkaat fu nu nekk fu ne fu nu nekk fu ne soxla danoo soxla kuy dox ci dëgg kuy dox ci dëgg di wax lu leer di wax lu leer di def lu leer def lu leer kilifa gii nag kilifa gii nag miin nañ ko miin nañ ko jaxasoo nañ ak moom jaxasoo nañ ak moom te tey egsiwul tey egsiwul ku ko jege ko jege ku ne. doo ko rëccu. doo ko rëccu. ku ko jàppale ko ne. sa bopp nga jàppale. nit da lay wax ni. nit da lay wax ni. dinaa la jàppale. la jàppale. waaye kii. waaye kii du ko ñuy jàppale. du ko ñuy jàppale. da ngay jàpp ka yow. da ngay jàpp ka yow. pour yëkkati ko. pour yëkkati waaye kii moom. waaye kii moom. yàlla samp na ko. yàlla samp ko. Mm. nit ñi. nit ñi nag nañu xam. nañu xam li leen yàlla jox. li leen yàlla jox kilifa ak diine. kilifa diine kenn du ko jàppale. kenn du ko jàppale. kenn du ko jàppale. kenn du ko jàppale. kenn du ko jàppale. kenn du ko jàppale. yàlla samp na ko. yàlla samp na ko. yàlla jàpp na ko. ku bëgg a dem. ku bëgg a jafandu. ku jafandu rek. mu yóbbaale la. la. waaw. ah yàlla na yàlla dimbali nu yàlla yàlla ba nun ñëpp ba ñun ñëpp nu jàpp moom mi moom mi yàlla mi nga xam ni yàlla mi jàpp na ci yàlla jàpp na ci moom jàpp ci moom jàpp na jàpp ci yàlla baax na baax na waaye yàlla jàpp ci yow yàlla moo gën a dëgër moo gën a dëgër ku yàlla jàppul ci yow nag ku yàlla jàppul ci yow nag doo toog doo toog jotaay yu mel nii nii nga def nag nii nga def nag moom la alxuraan di wax ni ma alxuraan di wax ni li misli haasa li misli haasa fal yaxmal fal yaxmal alxaamiluuna ñu baax ña ñu baax ña démb ak barki démb démb ak barki démb bañ daan jaar bañ daan jaar mooy sa tànk yi mooy sa tànk yi yàlla na yàlla barkeel yàlla na yàlla barkeel na yàlla nangu yàlla na yàlla nangu ñii nga àndal ñii nga àndal ànd bi ànd bi yàlla na sax yàlla na sax yàlla bu seytaane am wàll yàlla bu seytaane am wàll kontaan nañu kontaan nañu bég nañu bég nañu li ci des nag li ci des nag euh, kaddu baay du moom kaddu baay du moom dañ ci dul doyal dañ ci dul doyal ba tax na na ko mottalil boppam ba tax na ko mottalil boppam barkeelu ci barkeelu ci maa ngi jéggalu kaddu yi dafa am tuuti rek may leeral. nee na ndax daabo ji sëñ Abdou Ñing indi. ndax daabo gi am lu ci xew loo xam ne xëy na ñu bëri xamuñ ko. xew loo xam ne ñu bëri xamuñu ko. damaa xëy suba. damaa xëy suba. ñëw ci góor gi ni ko ñaanal ma. ñëw ci góor gi ni ko ñaanal ma. damay dem Touba Toul. damay dem Touba Toul. mu ñaanal ma. mu ñaanal ma. dem jënd fa ñaari xar. ma dem jënd fa ñaari xar. bu góor ak jigéen. bu góor ak bu jigéen. bu góor ba mbotee la bu góor ba la mu tuuti mu tuuti mu ko dugal ko ci sama wanag mu andi ko dugal ko sama wanag mu nekk fa mu nekk fa nekk fa nekk fa ba daaw ci tabaski ba daaw ma génne ko ma génne ko yóbbu ko di ko jaay yóbbu ko di ko jaay mu nekk fa mu nekk fa ba ñu suba la tabaski ba ñu tabaski xar mi jarul xar mi jarul ma jëlaat ko delloo delloowaat ko ci kër ga ma jël ko delloowaat ko ci kër ga mu ma sa xar mi dafa jaru la ma sa xar mi dafa jarula la ma ne ko déedéet ma ko déedéet mun ma dugalaat ko ci biir mun ko ko dugalaat ko ci biir taxaar ci yàlla taxaar ci yàlla ma dugalaat ko ca biir ma dugalaat ko ci biir yaraat ko fa yaraat ko fa ba jii ba ren jii yàlla dogal yàlla dogal ñu wax ko Abdou ñu ngi mii ñu wax ko Baye Abdou ngi mii ma ne ko ah, man de am naa xar mu may jaay mu ka ah, man de am naa xar mu may jaay mun ma dama lay wax lu leer de mu ah, dama lay wax lu leer de su ma ko gisee bu ma ko gisee méngoo wul ak méngoo wul ak kilifa ga ma koy jëndal kilifa ga ma koy jëndal dama la fay bàyyi seeti ma neen dama la fay bàyyi dem seeti ma neen ma ne ko waa am nga ndigal mu ko am nga ndigal da ngay ñëw ba xool ko da ngay ñëw ba xool ko bu méngoog mi nga bëgg méngoo mi nga bëgg fa lillaahi alhamdu fa lillaahi alhamdu su méngoowul ak mooma méngoowul moom it man ngaa seet maneen man ngaa seeti meneen ma it ma seet ku ma ko jox it ma seet ku ma ko jox yàlla dogal mu ñëw xool ko yàlla dogal mu ñëw xool ko daa ci kontaan lool daa kontaan lool daal ni lii de sedd na sama xol daal sedd na sama xol ma jox ko xar mi ma jox ko xar mi kon xar moomu su ko indee kon xar moomu su ko indee jox ko Baye Abdou jox ko Baye Abdou mii Baye Sëñ Canaba te moom mu ñaanaloon ma ca moom mu ñaanaloon ma ca boobu xar mii mbote mu tuuti la xar mii mbote mu tuuti la loola di dox loola di dox te boobu moom nekkagul Sëñ Canaba te boobu moom mii nekkagul Sëriñ Canaba ba yàlla indiwaat lii ba yàlla indiwaat lii mu toog fii mu toog fii tey Abdou ñu ngi ñëw jënd xar moom sa Baye Abdou ñu ngi ñëw jënd xar mi jox ko ko jox ko baatin boobu rek laa ci bëggoon baatin boobu rek laa ci doon wax kon xar kon xar mi xam naa xar yëpp la xolam sedd. xam naa xar yëpp waaye mii moom xolam sedd. waaye moom mii xar mi xolam sedd na. ndax ñaanam daf caa jiitu. ndax ñaanam daf caa jiitu. loolu ci doon loolu rek la sa waa ji sa waa ji nee na jërëjëf. yéen waxoon ñépp sax. yéen ñi waxoon ñëpp sax. man na maa bañ a jaarawaat ci seen i tur. na maa a seen i tur. waaye xam naa leen. waaye xam naa leen. waaye jamono ni toll waaye jamono ni toll moo tax man leen jàggeen jëf moo tax moo wax leen jërë ngeen jëf ku fi wax rek ku fi wax rek ak ki waxul ak ki waxul ñoom laa yemale ñoom laa yemale ndax kenn ku ne ndax kenn ku ci langa la nga ci sab xol la nga denc ci xol dara umpu ma ci dara ma ci te lépp rafet te lépp rafet na Njaga euh, jërëjëf sëñ Njaga sa waaju nee jërëjëf wax nga fi cosaan wax nga cosaan ndax sa yaay ndax sa yaay fa mu yaroo fa mu yaroo ba ba génn mel ni mu mel mel ni mu mel mooy la sëñ Touba waxoon. mooy la sëñ Touba waxoon. buñ nee diwa baax. buñ nee diwa baax. mu ne mm, ku ko yar. Mm, ku ko yar. du laaj ku ko jur. du laaj ku ko jur. du laaj dara. du laaj dara. danaan ku ko yar. danaan ku ko yar rek. waaye soxna Ramata. waaye soxna Ramata. mi yar sa yaay. mi yar sa yaay. nga taawlu. nga taawlu. tuddee ko ko. tuddee ko ko. tur wa jaar ci man. tur wa jaar ci man. loolu teraanga la loolu teraanga la. nga di ko fàttali. nga di ko fàttali. fu ma fa jaaree ci mbedd ma. fu ma jaaree ci mbedd ma ñu daw dab ma. nga daw dab ma. ak teraanga. ak teraanga. ab du yow nag. ab du yow nag. damaa bëgg nga noppalu. damaa bëgg nga noppalu nag. ma noppalu ma noppalu. ndax eh, ci biir koor gi. ndax ci biir koor gi. fii nga ma fekk. fii nga ma fekk. ma lal fi. ma lal fi. yor sama kaamil. yor sama kaamil. di jàng. di jàng. sa suukarus koor. sa suukarus koor. yaa ma ko joxe fii. yaa ngi ma ko joxe fii. fii nga ma joxe xar mi. fii nga ma joxe xar mi. fii nga ma joxe woon suukarus koor. fii nga ma gi. te it booba sama kilifaa ngi fi. sama kilifa booba sama kilifaa ngi waaye boole woon nga ma ca. waaye boole woon nga a ca. kon tey daa gën a neex. kon tey daa gën a neex. maa ngi gërëm. maa ngi gërëm. maa ngi san maa ngi sant. maa ngi ñaan. maa ngi ñaan. li nuy ñaan li nuy ñaan yal na yàlla def muy sunu muur yàlla na def muy sunu muur saayir ci baatin saayir ak ci baatin mas bi kalimatillahi taamati min sharri ma xalaqa bismillahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal